asalaamualeykum wa rahmatullah Macky Sall sénégalais yi ma yónni ci yow euh, li ngeen di ruumandaat ak deal bi ngeen di jéem yépp xam nañ ko te dañ ci yàgg bàyyi xel nag ndax ñun xam nañ la ndax xam nañ la bañ la joxee Sénégal ba léegi yaa ngi deal waaye dañu bëgg nga xam ne élection yi sénégalais yi nee nañu ma wax la ne du am benn rapport élection voilà ñu ngi lay sàkku xawma walla dànkaafu pour nga bàyyi xel ne àdduna amul solo kenn ku nekk ci ñun yàlla da koy dénk waaye ndénkaane bi bu jeexee day gàddu ay bagaasam dem ci jàmm ak salaam tappale yi ngay def yépp yaag baajo kamara yéen a ngi déggante lépp loo leen di ruumandaat lépp loo leen di lijjanti ñun xam nañ ko ba pare tappale yi nga nekkee yépp xam nañ ko waaye bul fàtte ne am na président conseiller constitutionnel bu démissionné woon laata bandi yii fa ne nii am na yi keneen ku démissionné woon ba adjoint am sax ngeen assassiné ko te ay élection amoon na donc gis nga Sénégal bu la neexee nga rey waa constitu conseil constitutionnel yépp bu la neexee tappale bu la neex nga dugg ci njuuj njaaj bu la neex nga dugg ci fu la neex nga lamb fu la neex nga laal lu la neex defal Macky ñaar fukki fan ak juróom-ñeent moo la dese ci nguur gi nguur nag dafa neex yombut a bàyyi waaye comme toujours na ko wolof njaay di waxee dafa ne gor du ñedd ndab waaye yow doo gor wolof yi xam nañu loolu ñuy wax ba ñuy indi moo boobu yow taxoo ñu koy wax yow danga nga bëgg a ñit ñedd boolu senegal bi danga nga bëgg a jël senegal def ko sa moomeelu ndey sa baay da bëgg jël Sénégal koo mere nga fajee ko ko bàyyil senegal senegal moomoo ko sëñ bi sunu gaal la tudd gaal la aw gaal boo xam ne ñun ñëpp dañ cee bokk noppalul repose gis nga booy bi la luy laa luy xoolaat ko dama la bëgg a defal nii nga xool ko baax gis nga booy bi incha allahu rabbi kii ngay joxanteel loxo avril bii di ñëw bu soobee yàlla kii ngay joxanteel loxo ngeen rombante waa ji waa ji nii xool ko baax xoola xoola waa borom sikkim bi comme ni ko ndaw si di neena nee na kenn ci yéen amul sikkim gis nga waaj yi kii waaj yi kii mooy jomaay incha allahu rabbi kii ngay joxanteel loxo rombante di nga dem de ay rapport ak bañ a am rapport ak élection ya taxaw ak ngay tappaleeg ngay njuuj njaaj ngay wuruj ngay waraj ngay jéem a forcer pour ñu coup d'état laak ndax xam naa ne fi mu tol ni moom boo moytuwul yéen a ngi teg dil aussi en vous connaissant parce que le président Ousmane Sonko demb ci discours am ñun am na luñ ci jàngat déggaat nañ ci Maysa Sele Ndiaye déggaat ci Moussa Fall xam la nga xam ne moom ngeen def ba gars yi yóbbu leen fële nga xam ne moom mooy euh, euh, cour pénal seen dossier yaa ngi leen yaa ngi leen di fa xaar donc à tout prix da ngeen bëgg taal réew mi wala ngeen jàpp réew mi otage réew mi kenn ci yéen amul maqaama wu yëngal ko réew mi ñun ñooy bëgg mu yëngatu ñun ñooy bëgg mu ne tekk ba ñu bëggee mu tekk ba léegi lan ngeen gis mu yëngatu fi picc sax yëngatuwul du yéen de ñi leen di jay toujours naa leen force restale à loi wala nangam dégg naa temps yi yéen ci seen bopp waa APR ñoo commencé ne dafa am juge yu corrompu Siré Ali kan moo gën a corrompre ndeyam ci àdduna bi Siré Ali Ba mi nekk cour suprême kan moo gën a corrompre ndeyam ci àdduna bi du yaa ko corrompre Maham Diallo ku ko gën a corrompre ndeyam du yaa ko indi Mamadou sekk ku ko moom du sa doom ah juge Samba Sall ndem si yàlla Samba Sall yàlla moom ku ne dañoo àttee say jëf surtout juge ndem si yàlla Samba Sall ku ko moomoon du yaa ko fi tegoon ba mu la neexatee ba mu la neexatul du mu ngi nii waaj a dem na àllaaxira yowmal am waaw ñii tamit bu ñu la neexul bu dee danga leen jox sa xaalis waxoon naa la ñii li loolan di tooñee du ñoom clé jomaay bi moo def effet la clé de jomaay a fait ses effets yooyu clé jomaay bi def looloo tax ba léegi jomaay ne fi xam nañu ci li nga ne dil bi ngeen di teg ni assemblée nationale di dof-dof lu yépp bëgg koo turux Karim Meïssa Wade ak Karim Ndiole Ndiaye ak suñu yoon nekku ci conseiller constitutionnel jël na vingt candidats am bouclé na xawma vingt et un bouclé na ko tëj na ko falay yem Macky ñun am na nañu lu ñu naqari mun ñun bu fekkee sénégalais yi yaakaaroo ne am nañu lu ñu naqari ku mel ni daw Daouda Ndiaye imaginel Daouda Ndiaye quelqu'un professeur da Ndiaye du professeur sax bu légal ah. bu benn nit xamul muy jëkkëru Ami Ndaw Ami Ndaw mi atte Ousmane Sonko ndeysaan Ami Ndaw mu Ousmane Sonko daan jullee ci biroom mu doonoon juge bu nekkoon justice ngeen ñëw gaawantu parax paraxe takk ko corrompre ko tey moom moo nekk grande instance Guédiawaye président ngeen defe na yéen ñun ay dof ngeen ko seqal billahi Macky dóor nga sa ci ëkk sénégalais yi nee nañu ma wax la na nga diil sa assemblée national boobu nga def sa dof-dof lu yooyu yëpp enquête parlementaire la xaw ma enquête corrompère boobu ngeen ubbi assemblée national lu leen neex def leen ko lépp jot nañ ci la ngeen ruumandaat ci biir assemblée bi tegaat ay dil man dama defe ne waa ku boor bale ñoom amoon nañu jom léegi changé nañu ndeke changé guñu ba léegi xale PDS lay woo nañu am fullaak fayda mag ñaa ngi diil ci seen kaw ndodd mi dañu bëgg rek ku leen jox xaalis bu dëgër pour ñu naxaat leen bu leen ko nangu de fi mu toll nii bëgg bëre bëre bañ bëre bëre bëgg bëre bañ bëre loolu mooy dëgg dañoo sonn ci seen tappale yi soxna mi mi ñu ngi leen di jërëjëfal yaak maritow ñaan ñu ngi leen di welcome voilà parce que dëkk moom ku bëgg mu changer ci dëkk soit yaa ngi ci côté dëgg wala yaa ngi ci côté fen te yéen da ngeen choisir dem ci côté dëgg parce que xam ngeen ne dëgg moo mën a changer réew kan moo mën a toog Sénégal tey mille nangam détenu politique ñu ngi ci kaso bi yabuloo sénégalais yi yabeel boo xam ne nga ne yow da ngay pousse ay élection y a mille cinq cent détenus politiques le président Ousmane son est en prison Bassirou Diomaye Faye candidat désigné sax mi ngi ci biir prison bi yow nga ñuy wax ñu ne ay élection yi ñu puus Macky kenn puusul kenn paasul bu soobee yàlla ñun ak yow billaay wallaay tallaay ba ci urne ñu ñun ak yow ba ci ñuus yu metti yi ñu la nar ñuus bu ci yàlla àndee te bu ñu paree ci loolu Macky la ca des moom defe naa yow am nga réponse bi dama ne nañu taxaw tembe Macky ëpp ñu fulla ëpp ñu fayda ëpp ñu jom sénégalais yi laay waxal nag nañu taxaw tembe waa asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp fulla ak fayda rek maintien jërëjëf